ne eh eh maa ngi leen di ñaan waaye déglu leen ko waaye déglu leen ko waaw mais déglu leen ko déglu leen ko eh pardon voilà arrête arrête après pour le contact allez arrête après du temps gis ngeen li ñu dajale fii tey li ñu dajale fii tey nañ ko def na mu waree moom am na droit jël kàddu bi yoon moo ko tëral waay waay calmez-vous maa leen ko ñaan ngir yàlla bu jeexalee ñu jox beneen député mu jeex après ñu wote waay waay il faut pas qu'on perde du ku mu wax li muy wax reprenez la parole remettez la machine en marche Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les collaborateurs du ministre, chers collègues. Durant mon parcours en tant que parlementaire, j'ai rarement vécu une séance aussi grave que celle de ce matin. Ne nous voilons pas la face, chers collègues. Ne nous cachons pas non plus derrière notre Notre auguste assemblée, et je suis très peiné de le vit aujourd'hui une des périodes les plus sombres de son histoire. Le fait de voir cette assemblée se transformer en bloc compresseur contre notre cher collègue Ousmane Sonko, dont on exige la levée de l'immunité, me fend le Non pas parce qu'il serait un intouchable, non pas parce que nous ne devions pas collaborer avec la justice et mais parce que non seulement mu ne disposons pas à ce jour d'éléments suffisants pour son immunité. Et puis, la procédure de saisine de notre institution s'est faite en, violence, en violation flagrante de l'article du Code de procédure pénale. de l'Assemblée aux fins de lever l'immunité parlementaire d'un député se base sur le réquisitoire introduit justice du procureur de la Or, dans le cas qui nous concerne, ce réquisitoire ne vise aucunement notre collègue Ousmane Sonko, mais plutôt X. C'est dire, chers collègues, que nous n'avons en réalité aucune base légale pour lever son immunité. Outre cette violence, cette violation de l'article 71 par le juge d'instruction qui ne se base que sur les PV de gendarmerie pour sa saisie La précipitation avec laquelle il requiert la levée de l'immunité de notre collègue est La logique voudrait en effet qu'il attende au moins l'audition de la plaignante, en l'occurrence Adissar, pour avoir des éléments de nature à mieux asseoir sa demande. Or, l'audition de la principale concernée n'a eu lieu seulement. Donc, bien après la demande de levée de parlementaire de notre collègue, chers collègues, l'on nous demande donc de poser un acte aussi et aussi lourd de conséquences à l'encontre d'un collègue, sans nous donner suffisamment d'éléments pour le justifier. Vous conviendrez avec moi, chers collègues, qu'il n'y a pas pire injustice, rappelons-nous, donc comme disait Montesquieu, qu'une injustice faite à un seul est une menace faite à Par conséquent, je vous invite, chers collègues, à bien mesurer l'acte que nous avons à poser aujourd'hui. L'actuel exécutif bat malheureusement le record de levée d'immunité parlementaire. Et nous avons été amenés à plusieurs fois à agir dans ce sens sans que cela n'ait permis de connaître la vérité sur les faits pour lesquels les collègues concernés étaient impliqués. Eh, Et, Et Agora, é, é, é, é, é, é, é, yaa ngi seetaan. on reprit exactement les mêmes comme si la fameuse affaire de la caisse d'avant n'avait jamais existé. attention attention à ne pas commettre avec injustice à la loi de notre collègue Samson. le gouvernement de Libé. honorable yéen maa ngi leen ñaan. yéen yéen yéen yéen yéen yéen ñu rek may ñu rek yéen may ñu rek waaye yéen may ñu rek may ñu rek. temps bi temps bi. et président président temps bi. wax nga leen nii ñu nag. ak ki mu toog. tey da ngaa war a noppi tey de war nga am jaaxle te njaboot mënoo leen noppiloo war nga am jaaxle tey de tey de war nga am xam nga yëguñu la fi nga toog yow. président xam nga ni fi nga toog kenn faale wu. di feeñ maa ngi fii toog daw ma fenn. voilà. monsieur le président bloquez le temps bloquez le temps pour madame Aïda Mbodj c'est une avocate représentée et représentative et eh, Aïda eh, Aïda Aïda bul wax de bul wax taxawal foofu rek yow taxawal rek c'est ça <laughs> c'est ça Amadou Mbodj fara gadel gadel fara may sa nguy doo jaamu kenn yow doo xaj doo imbécile sunu maam yee ba Sénégal am léegi nag nous sommes gouvernés par des Niass par des Diom par des par des Ngom nous sommes fatigués nous deret jeex na ci mim réew Eh, eh, eh, ah vraiment nag yow nag aji mbergaan nag tey tey ay meeru new fi nag waxal nii ñu noppi ndeysaan ay meeru laa yërëm bu nekkoon sax mënuñu ko ko àpp bàyyi ko bàyyi ko ñu bàyyi ko fii ba timis ku wax taxawal fii ba timis non non bul wax ta bu nit noppee noppi nit ñi dégg fii ba timis rek waaw. cam déggal suñu président waay. Aïda Aïda. ma ne Aïda ku wax noppi. ma ne ma ne fii ba timis. nee ma ne ma ne. may leen ma tuuti wax déglu leen ma tuuti maa ngi ñaan notre collègue Adji Mbergane Adji Mbergane le président Aïdara n'est pas yow yaa yaa topp ci moom. waaye itam bàyyi leen ko nag majorité bi nga waxal ma ñëpp. ay responsabilités. ku nekk yaa ngi sa xol ku yow nga wax leen. ndeysaan mënatu leen dara mu leen di boole. maa ngi leen di ñaan ñu calmer parce que liggéey baa ngi yàqu waaw dama ne calmez-vous yëf yi 15 minutes la calmez-vous. <coughs> ils vont souffrir en écoutant Aïda Mbodj. jógal nga calmer ils vont souffrir. bon continuez. yóbbante la. Nous devons refuser, chers collègues, que notre auguste institution soit une nouvelle fois instrumentalisée à des fins de règlement politique. Arrêtons aussi de banaliser la légitimité parlementaire et de désacraliser. Par la même occasion, ce bouclier qui est censé nous protéger contre les députés de la majorité comme de l'opposition. Pour l'histoire, nous devons donc rejeter cette demande et éviter que notre Assemblée ne serve de faire valoir une entreprise de liquidation d'un adversaire politique. Monsieur le Président, je ne peux m'empêcher de vous interpeller directement et personnellement, car je constate pour le déploiement que votre parcours d'homme votre longue expérience et votre sagesse ne vous est pas amené à exiger que la saisine de notre institution se fasse dans le respect de toutes les dispositions prévues en matière de développement de parlement. Je me désole que vous l'immunité de notre collègue Ousmane Sonko sur des bases aussi légères. Chers collègues, je vous exhorte alors qu'il est encore à mesurer pleinement le sens de l'acte que vous aurez à poser aujourd'hui et qui pourrait sauvegarder ou remettre en cause à jamais la dignité de notre Assemblée. Alors, pour l'histoire, pour la dignité de cette institution, pour la sacralité de, son, de notre immunité parlementaire en tant que député, je vous invite à monsieur le président maa ngi lay nuyu di ministre yi di wax ni affaire bi nga xam ne dañ ci tudd suñu collègue Ousmane Sonko ba tax ñuy levée d'immunité parlementaire dafa nekkoon affaire privée ba mu mujj nekk affaire d'État jërëjëf monsieur le ministre parce que leeral nga ji waaye damaa xam ni xaw ma ban conseil des ministres nga yëgal président waaye le neuf mardi la donc bu woon conseil loolu man gis naa ne élimination, euh, toute, toute, toute, euh, pour toute élimination des ci lañ ko voté Abdoulaye Wade ñëw en 2000 voté protocole optionnel bi nga xam ne jigéen ñi nga leen yàq sudul noonu mën nga leen directement na suuf ñu ratifié fii à l' assemblée fii la toog sa collègue Cheikh Diagne Gadio ko ñu ratifié le protocole de Maputo mu li moo taxoon voté wu ma ko seen loi viol bi xamoon naa li ko teg